Baye Moussa woon ay Ala Aco ay xam nga ay mm-hmm. bébé ama damb paxa ba xam nga te booba léegi nii moo moo tax lu yàgg dëgg la da ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul di nuyu Baara Gaye sama xarit xam nga borom West Foire di nuyu Bamba mm-hmm. xam nga di nuyu Pape Gaye bu baax suma doomu yaay d'accord waaw di leen sant bu baax a baax d'accord garaaw sant moom yëfam la quoi mais bu fi may njëkkee euh, bu pourquoi pourquoi bu Sénégalais teel ko bëgg bu lu mu wax xale yi salange ko lan mooy sa secret waaw secret bi mooy Bou Siteu xam nga rek maanaam ñëw ñëw si làmb ñi ñuy yaakaar ne kii si mbër si affaire làmb lay dox ma ñëw boole ci loo xamante ne xam nga di bégal sénégalais yi xam nga rek Bou bu waxee mu neex su ma waxee gars yi tiktok ma. Mhm. te parce que xam nga rek maa ñëw si làmb indaale samay slogan yoo xamante nii yombul mbër ñëw si làmb rek tàq noonu yor ay am ay slogan yu mel noonu. Mhm. ba loo wax mu neex sénégalais yi. Mhm. fii kenn neexalul kenn kenn joxul kenn lekk. xam nga kenn yàqatul temps sax si nit naa da ngay taxaw di di toppandoo benn nit kon tey su ma demee ba sénégalais defal du kii mu lu mel noonu. Mm-hmm. loolu dama ciy sant sénégalais yi. Mm-hmm. lii rek moo may wan ne lii rek war na tax man waratuma juum. Mm-hmm. yee sénégalais nuñ may enjoyé ma bëggee daal. xam nga rek gis nga fan yii passé veer yi. veer yi waaw adduna bi ñëpp a jël veer yi. <laughs> veer yi def buzz ah. waaw veer yi def buzz a xam lu ma wax mu neex gars yi toppandoo ma. xam nga rek veer yi tamit moo loolu mais maa ngi bëggee nag képp kuy takk veer rek. te veer jàpp la rek da ngay toog xaar xam ne verre sama yëf la xam nga <laughs> loolu toj Sénégal dëgg la waaw di bëggee gaa yëpp nag ay Ama Balde ñoom ñëpp defal ma si di ko nuyu bu baax Ama Balde ay mbay guy gi xam nga mm-hmm, mm-hmm. ay Moussa Ndoye mm-hmm. xam nga ñëpp waaw xale jigéen ñi fii xam nga di nuyu gaa yëpp nag barke Serigne Bamba d'accord euh, aussi tamit euh, ci say ci say wax souvent dañuy gis euh, nga am yoo xam ne da nga ko doon développé mooy bu man dama war a Mm. oto bi oto bi dégg naa ñëw na parce que maa gis benn range bu gaare fii. waaw xam nga rek <laughs> kooku moom su ma benn grand bu baax moo def lu mel noonu. waaw barke Serigne Touba Mbacke ñëw may ko woon sax teel a wax. waaw <laughs> waaw billaahi Pape Bafou Faye. Mm-hmm. Pape Bafou Cissé. Mm-hmm. waaw borom Pikine mm-hmm. ngi koy sant bu baax. waaw gis nañ teraanga yeeg lépp barke Serigne Ba maanaam amul dara man ñi ñi la rek. man xamoon naa lu mu yàgg yàgg yàgg damay am oto. waaw suma transitaire bu mag bi. waaw moom moo ko def. Mhm. waaw ñu ngi lay ñaanal bu baax di nuyu tamit xam nga ñoom ñoom Pape Kane mhm. waaw mafia bi daaru bi Pikine bi xam nga mhm. waaw Pape Bof Faye maanaam kooku nit ku Pape Bof Cissé ku baax la quoi d'accord waaw moom nit ku baax la ko quoi suma transitaire bu mag bi maa ngi koy nuyu baax di jabaram bu baax di nuyu doomam boo xam ne suma xarit la quoi ñu koy wax Codé d'accord waaw maa ngi sant bu baax d'accord dinaa ñëw foofu ah. bu ma ñëw ma ñëw ci làmb ji tuuti ah ñu ngi soo combat bi passé Euh, sénégalais yu bari doon la xaar ci buur dafa jógee ci Laurent war a indi ndam mais sénégalais yu bari ñenn ñi naan buur léegi dafa dem ba topp comédie bi ba bu du entraîner et tout ça. waaw gars yi xam nga rek gars yi moom dañuy wax rek maanaam léegi làmb dafa toll foo xam ne ñun sunu guddi yi nii képp ku si daanu rek coow da lay topp. Mm-hmm. da ngay dégg lu nekk. barke arxuraan maanaam lag léegi lamb moo toll foofu mbër bu ci daanum instant da ngay am chaise. Mm-hmm. lu ne ngay dégg. Mm-hmm. Ada Fass yi nii berki Demba daan mais xoolal li ngay dégg. Mm-hmm. maanaam façon wax bu nekk la ñuy mais loolu du maanaam du tax ñu découragé. maanaam loolu day tax ñu gën a jàpp. parce que arxuraan ko def ay affaire comédie la mooy comédie taxaw nii wax lii lii mooy comédie mais mooy loolu xam nga rek man maa nekk ko ñun xam xamante ne xam nga man lu ma wax mu neex sénégalais di koy bëgg di koy enjoy mais boo nekkee mbër mu munoo loolu mais tamit ki nekk mbër mun ko tamit te ñii ñi di ko safoo mais tamit xam nga rek. waaw man dama ñëw si làmb indi sama yëfu sama yëfu bopp. waaw mais boo nekkee mbër boo xam ne yow amoo slogan doo wax mu neex kenn du la toppandoo. xam nga mooy loolu bokkul daal. man dama ñëw si làmb wàccee sama bopp ubbi sama bopp. yee. parce que bu Siteu aussi tamit nekk na xale boo xam ne géej waaye tamit daf fi teel a am coow ba bu léegi foo gis Balla Gaye bu ngay gis fee foo gis guy gi extra Sa Thiès yaa ngi gis coow loolu noonu. waaw coow li muy xam rek. maanaam man maa nekk nit koo xam ne programme boo am bu ñu fa gisul bu Siteu sénégalais yi du mënuñu leen affaire loolu du neex. mais imagine toi ñu gis ma ñu gis ma si yu mel noonu. Mhm. mais ku xam Balla Gaye 2 fu mu génn tey jii ñu gis fa ku mel ni bu mhm. ak ay affaire boppam. Mhm. xam nga rek. ak ay ambiance boppam. xam nga rek yow gis nga baala gay 2 fu ma gis day reetaan. <laughs> moom dafa yàqam di maanaam man mu may gis si wetam. te parce que moom dafa maa bëgg xol bee rafet. waaw Balla Gaye 2 maanaam loolu xam nga rek. mooy loolu daal. Mhm. moom géejawaay moo ko ñor ba pare moom dafa nekk nit koo xam xeebul nit quoi. Mhm. man Balla Gaye de loolu man man maanaam man loolu moo ma gën a bàyyi si moom. Mhm. waaw dafa nekk koo xam maanaam xeebul nit barki Serigne baa Mbacké. d'accord waaw ah, ku baax la quoi mbooloo mbooloo mi lay topp fan lañ jógee. waa mbooloo bi may topp moom muy maanaam man mii sax daf loolu daf maa jaaxal. su ma amee combat sama koñ maanaam. waxuma la sama waa koñ kase de sama waa koñ bu ñu toogoon sax kenn génnul barki Serigne Touba Mbacke yow gis nga. Mm. maanaam nit ñi fu ne lañuy jógee ay jàmm gan ay ginnaaw raay ñuy jugee ay mbuur xam nga maanaam ñii ñi fu ne la ñuy jugee ñëw naan ñun xam nga sol ay tiset bind si seen secteur yi ay ku si mel ba ba alaya ñàgg bi. xam nga ba ñàgg nit ñi fu ne la ñuy jugee def mbooloo xam nga ñiy jugee ay Grand Médine ñiy jugee ay Grand Dakar xam nga di nuyu waa benn tali bu baax suma mafi bi ñoom xumóori ñoom papa xam nga mm-hmm. ay ñoom Madsa xam nga mafia bi foofu gars yi benn tali bi gars yi may bégee xam nga mm-hmm. ay Fallou Dileur waa Grand Dakar mm-hmm. xam nga rek ay Pape Sène xam nga ñooñu maanaam lu yàgg dëgg la d'accord parce que Serigne Touba Mbacke maanaam man ñii ñi daal man xaw ma daal waxantuma laa nag géejawaay bu génn. d'accord te yow gis nga léegi géejawaay fi ñu ma teg. d'accord d'accord ñu gis aussi mbooloo mi leen daanaka sénégalais yu bari euh, dañuy wax ni mbooloo mi nekkuñ ay jeunesse yu conscient xam nga mbooloo mi nekkul mbooloo moo xamante ni genre euh, ñi leen di topp boo xoolee affaire ay banditisme moo tax ñi leen di topp ak extra. waaw loolu moom maanaam loolu ñëpp lañ koy waxal. Hmm. mais xam nga rek nit moom boo nekkee ci yoon moom. ay nit bëgg la di la topp. xam nga maanaam mënul ñaax am na ñoo xam loolu maanaam mënu leen neex daal maanaam. wax ju ñaaw rek lañ si mën mais man ku ma xam man xam ne man su may nitu démb rek laa man du ma ànd ak koo xam da ngay def man du ànd ak koo xam te ne nii ngay nga na ngay ànd ak man ak man ni ma mel ci Sénégal nga na ngay ànd ak Bou Siteu di def na ko su doon man loolu noonu amul sax nit ku ko ñeme man ñi may ànd ñëpp kenn du si def yooyu parce que Serigne Touba Mbacke chaque parce mm. que chaque jour man noonu laay dundee ak dama leen di man maanaam man yéen a ma ñor jeunesse bee ma ñor maanaam. Mm-hmm. mais si ñu may àndal damay wane loolu. Mm-hmm. geste bu nice. Mm-hmm. waaw imagine toi may may ànd ak yow di la dundaloo yëfu band yow après boo wéetee sax di xam ne bu Siteu nekkul nit ku baax. mais imagine toi man yooyu yëpp dama koy a ba pare ne da ngay sàkkatoo ne da ngay ne da jël alalu jàmbur. te Mm-hmm. waaw mu ngi mel ni magu buusi da génne comme samay mag ni ñuy génnee nga jël seen ak nit noonu mm-hmm. yee barke alxuraan mu euh, rek muy maanaam su suñu benn grand boo xam ne maanaam yàgg na si kaso bi ñu koy wax Birane. muy Birane mooy gis nga kii bi ñu fi daan dégg 2009 boobu ba léegi. ñu téye ko si kaso bi si loo xam affaire newetaan la ay xeex. xam nga moo loolu ñu ngi koy ñaanal Birane xam nga. waaw borom amoo 4 borom amoo 6. waaw moom maanaam ñun namm nañ ko daal. te ñuy ñaan justice xam nga ñu jéggal ko daal wàññi affaire yi. te parce vingt ans dafa bëri si grand frère boo xam te ne xam nga nekk yor soxna yor doom. Mhm. waaw maa ngi ñaan autorité Guèye ku si mel ni suma papa la Diop Birane borom amoo kaat kooku ñëpp a ko xam fii mhm. yàgg naa sonn si moo loolu si gars yi. ku xew la mu ñëw jàpp sonn si kon bu amee nattu yàgg si kaso bi dafa jot ñun ñu jug sensibiliser. Mhm. ak sama boy nga xam te ne instant nii procureur moo leen kii juge bi bàyyi na leen mais procureur moo leen téye foofu si prison bi boobu léegi ay boo yoo xam te ne bu ma la indiloon livre di la ko bindal fii du duñ fi jógee du jeex mhm. ñoo xam te ne nii la juge bi bàyyi leen de mais procureur moo leen téye foofu mhm. xam nga loolu metti trop te chaque jour message yi may woo rek mhm. dañ mbër gaan moo loolu ku si mel ni Modou Lo moom juge bi bàyyi ko mais procureur bi moo leen fa téye te boobu léegi yàgg na trop instant defaat nañ fa yeneen ma la sam waay bàyyi leen mais procureur moo leen fa tee di ñaan xama mhm. waaw gars yi jug jàpp si quoi. d' accord tey ñu seetaan sa sa Tama si te ñu ngi koy nuyu bu baax a baax déglu nañ message bi aussi am na solo. Mhm. tey ñu seetaan ko mu wax bay tuur xéewal. Euh, tey bi nga dégloo sa turandoo mu wax ban yëg-yëg nga ci am. waaw yëg-yëg bu ma si am rek muy maanaam maanaam li li mu wax dafa nekk loo xam man tamit dama koy dund. Mhm. waaw muy ñun dañuy xëy man tey tey rek ba may génn sama gaal sama yaay gaz barke Serigne Touba Mbacke mu manqué ñaata 2000 la manqué yoruma te noonu laa génne keneen ak keneen di ko dund kii di ko dund Ama di ko dund Paul di ko keneen di dund loo xam te ni sa biir gàll sa yaay te dafa metti yow gis nga essence yi mhm. waaw affaire yi metti na trop waaw maanaam ni mu noonu laa ko dundee rek. Mhm. affaire yi métti na loolu ku ko xool xam ne loolu metti na ngay xëy sa yaay war a charger gaz. Mhm. ne la lii moo si manqué te yoroo nooy def. xam nga rek. Mm-hmm. kon dafa jot dafa jot mm-hmm. gars yi jug jàppale jeunesse bi daal. Mm-hmm. xam nga affaire banditisme yi wàññeeku. na gars yi ubbil gars yi liggéey ñu liggéey. waaw gars yi mais gisuñu liggéey. parce que Serigne Bamba Mbacké. affaire banditisme wàññeeku mu mel ni euh, actuellement nii affaire banditisme dafa xaw dafa xaw dafa xaw a gën a bari mu mel ni dëkk bi ñu bari dañuy jooy liggéey. waaw instant yi instant affaire banditisme bi xam nga rek maanaam gis nga gars yi liggéeyuñ. ba pare affaire yi métti na. waa am na ñoo xam te ne xam nga seen seen lig li maanaam li ñuy liggéey demeewul noonu daal. Mhm. xam nga rek maanaam dañuy day gars yi dañuy taqale rek. Mhm. wallaahi ah dëgg bi dafa métti de. Mhm. man maa ngi nii làmb laay dund la maa ngi dund làmb maa ngi suturlu de. mais bu ma amul combat akay métti. bu ma amee combat damay teel a jeexal damay xam ne maanaam kon li jeunesse bi di yëg kon. man du ma la nëbbu de lamb ja xaw na ma dimbali si benn ko dafa man aw benn métier man lamb laa am muy sam métier. Mhm. mais imagine toi bu ma bëree ba pare amaatuma combat wala bu ñu may mhm. da nga koy nii nii nii rek maa mhm. yi nii affaire dafa métti. waaw yenn saa yenn gars ñoo lay woo nii jàpp si avant la benn weccat bu dëgër xam nga. ne la mbër teel te parce xam nañ ni Bou ci làmb ji la nekk. di di mm-hmm. góorgóorlu. Mm-hmm. xam nga yenn saa affaire yi day metti mm-hmm. kon dafa jot gars yi di si jàpp. waaw mais maa ngi sant képp ku siy jàpp rek waaw maa ngi lay bu baax waaw. ci ay biir yoo xam aussi tamit ñu gis ko muy annoncé benn message ci ñi nga xamante ni ñooy politiciens yi que ni dafa mel ni politiciens yi léegi dañuy utiliser jeunesse bi di leen xeexloo et tout ça. non maanaam c'est que yooyu noonu moo fi jeex waa xam nga rek maanaam ngay xeexloo man. maanaam loo xam ne yow yow da nga koy xoole comme sa raq mhm. man maa ngi ni sama raq man est-ce que dinaa nangu nit nit di ko woo di ko xeexloo ci ay loo xam te ne mooy loolu mhm. maanaam loolu noonu dafa war a ñun suñu niveau Sénégal niveau war na dépasser foofu mhm. fu ñuy génnee taxaw naan dañuy xeex xam nga suñu niveau war na dépasser foofu soo dégg ma la suñu niveau war na dépasser foofu dëkk bi waroon na am neneen nuñ taxawee ba si ku ku si nekk di nga di yaay di nga nekk Sénégal di dundoo xam ne yow maanaam am na loo xam sax xam nga waroo ko tal daal. mais dëkk bi dafa metti waaw di wax ne daal gars yi nañ jug jàppale jeunesse bi gestu jeunesse bi. xam nga ay xeex ak affaire yooyu noonu mais imagine toi ngay ngay ngay jàpp dat ngay jàpp dat boo xamante ne nii yow ay crime ay ay bakkan mu munoon nañ si rot. waaw waxantuma laa ngay dem bay jàpp dat naan mois de mars. tey la am ñu war a dee mais imagine toi loolu ñun ñun xam nga rek man loolu damay jug xeex si. Hmm. loolu damay jug xeex si. te képp kuy porte de voix yoon la nga génn wax. Mhm. waaw mais da ngay gis am ñoo xamante ni mala sam waay mooy loolu. Mhm. duñ wax. Mhm. te parce mooy loolu dafa am ñoo xamante ne xam nga. weccet mooy tax ñu wax. te yooyu noonu xam nga yooyu doxul daal. waaw maanaam ñun nañ nañ waaw maanaam nañ dimbali jeunesse bi waaye jeunesse bi sonn nañ waaye. damay xeex loolu damay xeex loolu kon da nga pare euh, moo fi am. non maanaam maanaam si côté porte de voix laay wax. man tey géejawaay ji est-ce que man. fii fii nii képp ku fi génn nar a waaj benn affaire man su ma ñëwee ne eh non non nii lay demee est ce que xam nga noonu lay demee. Mhm. te parce que xam naa ne jeunesse su Guédiawaye xam naa ne jox nañ ma bopp. dëgg la xam naa ne jox nañ ma bopp. mais am na leen loo xam te ne waru ñun nangu tamit xam nga. Mhm. waaw ku ñuy sàqatoo ñun kenn duñu sàqatoo ñun léegi dañoo màgg de. Mhm. waaw ñun léegi dañoo yeew ñun duñ nangu kenn sàqatoo ñu. waaw te parce que xam am na yéen yoo xam sunu niveau dépassé na niveau boobu. yee sunu niveau dépassé na niveau yooyu. fii yàlla kese fi nekk. coow li li muy rëy rëy yi li ngay dégg dëkk bi day tàq nii wallaahi mun nañ dem ba si jour bi mhm. leneen ñëw mhm. te leneen loolu jàmm la te mhm. jàmm sooju moom la ñuy ñaan xam nga Sonko doomu Sénégal la. Mhm. Macky Sall doomu Adji Sarr doomu Sénégal la. Mhm. mais xam nga mais am na loo xam war nañ ko rafetal quoi. Mhm. waaw man gëw ma koo xam te ne da ngay ñëw xam nga di teg loo xam te di di politiquer sénégalais yi. ñun kenn duñu politique parce a léegi dañoo yeew ñun nekkatuñ ay xale de. yeew ñun nekkatuñ ay xale léegi dañoo yeew. waaw Sénégal réew jàmm la te jàmm ji moom la ñaan. waaw pa xam Mhm. waaw noonu la demee xam nga rek man maa nekk nit koo xam man faruma fenn man sénégalais ñëpp ma comprendre da ngay wax waaw sénégalais yi ñoo xam nañ ni Bou Siteu maanaam mhm. waaw ñoom lijjantiwuñ sax Bou ay koo farala koo faralul si politique te parce que xam ne ni Bou Siteu waaw xam nañ ni maanaam lépp lu may wax si man jeunesse bee ma ñor mhm. yee man si moo loolu man politique ma yee mais di ñaan Sénégal nag yaa na fi jàmm yàgg di wax ni Sonko xama doomu Sénégal la xama moo loo Adji Sarr doomu Sénégal la la mais nañ ko lijjantee waaw nañ ko lijjanti si loo xamante ne nii xamoo bal bañ a tàq. waaw ay taal oto jàmbur taal ay këru jàmbur mais yooyu loolu yàq la. Mm-hmm. mais loolu nag yow yaa ngi yàq sa dëkk. Mm-hmm. te parce que mooy loolu. Mm-hmm. tey tey yéen ñi nga xam ne da nga ñu dëkk ci ci ci banlieue bi ndaw ñi di leen topp tey tey jeunesse bi ndaw ñi lan la ñuy dund surtout yéen ñi nga xam ne da ngeen jóge da ngeen jóge population bi. waaw ndaw ñi li ñuy dund rek muy dund bu metti wallaahi loo xam te ne xoolal du fi mës a jógee. xam nga gis nga sam booy fii ñaata. man sama combat bii nii nag si laa xam ne man booy boo yëpp a si kaso bi sama combat bii nii ma jógee nii si laa gën a xam ne boo yëpp a si kaso bi instant ay boo yoo xam ne ay booy ndaw xam nga boo yoo xam ne da leen di jàpp nii sax si benn lu ñàkk fayda sax nga jàpp leen tëj leen trois ans xam nga suñu tribunal bu géejawaay bi nii affaire bi dafa met chaque émission ma wax ko mhm. waaw maanaam tribunal bi ni muy doxee dafa mhm. trois ans na da nga leen yar. Mhm. tey ji ñu génn nekk bandi gën a nekk ranking ñu xam sax luy daw si temps bi après. Mhm. pour ñoom dañuy dañuy maanaam ñoom dañuy jàpp ne li ba tey moo fi nekk. te affaire yi chaque jour day a metti. da ngay gis benn booy boo xam day fël même pas deux mois nga dégg daanu war na ñu tëjaat ko benn trois ans. cinq ans. maanaam gis nga ñooñu bu ñuy génn ranking yooyu ñuy génnaale ak li ñuy dund si kaso bi ak kaso bi nu mu benn néeg buy jël cent personnes nga def fa trois cent personnes. gars di dund lu mer si kaso bi chaque jour nga jàpp jàpp si camion. xam nga sànni si àll bi. sama ñaata booy ñoo nekk convent nekk si àll bi. di tëdd ay longue pen di fa amaat problème si biir kaso bi ñu tëjaat leen ay yeneen deux ans waat ci biir kaso bi. Mhm. waaye loolu dafa metti waa di wax justice daal. nañ nañ gëstuwaat xoolaat affaire yi affaire yi métti na trop boo yëpp sànq nañ leen. Mm-hmm. waaw te loolu maanaam nekkul luy jëmale réew kanam daal. Mm-hmm. te ñoo ñëpp ay doomu Sénégal lañ suñuy njaboot lañ. Mm-hmm. xam nga seen yaay ak papa yi chaque jour dañuy sonn di dem si ay dëkk di yóbbu. ay collègue ay lu nekk. xam nga affaire yi moom métti na trop. d'accord naka nga gisee ñëw Ousmane Sonko démb Kër Massar ak mbooloo mi nga xam ne topp nañ ko. waaw affaire yi moom après si guddi gi laa ko doon ma ko woon sax mais après si guddi gi laa gis affaire sama téléphone. Mhm. ma gis ni Sonko doon ñëwoon na fee Kër Massar xam rek ma gis fa tamit mbooloo bu doy waar. Mhm. waaw gis jeunesse bi daal maanaam jeunesse bi génn daal ba pare jeunesse bi waaw maanaam. yërëm Ousmane Sonko daal. te parce que li ko dal métti na trop. Mhm. waaw li ko dal maanaam képp ku mu dalul munoo ko xam. waaw li ko dal Ousmane Sonko li ko dal dafa métti. xam nga te Sénégalais yi maanaam xam nga fukk la ñuy demee fukk de jeunesse. waaw muy maanaam maanaam leader bi Ousmane Sonko maanaam li ko dal dafa metti xam nga rek ndax fee bi yow ñëpp gis nañ feebu viol loolu nekkul fee bu ndaw. xam nga rek. waaw moo la gis naa mbooloo bi ñëw fa nag ñëpp ñëw. waaw maa ngi ñaan daal xama nga lépp daal yàlla teg ko si ñu arrangé lépp lépp sedd daal lool laay ñaan. d'accord mais mais mais mais mais mais bu mais bu bu ak finga nga toll daa mel ni yow techno de. non kii laa bii moom mooy. kii jiili CSB di ko nuyu bu baax. Ah, xam nga fan yéenee la ma décoré may ma buuse moom fa yóbbu may ma téléphone. mais instant sama niveau nag war na dépassé ay foldu <laughs> xam nga foldu bii yoon la ma yor treize yoon la ma si téléphone yu baax yi. barke Serigne Bamba Mbacke ku si mel ni moo ci ajara 14 bi mais fàttewuma ko nag. <laughs> borom London. war nga dépassé fool du war nga yor na mooy yor kóolu mool. <laughs> di yor kóolu kat ñetti bët yi. dafa jot comme léegi yow da ngay sa xale yi di ko jël c'est normal tamit nga yor kóol boo xamante ni. sa téléphone bi nga yor di wax prix bi di bind prix bi damay sax ruus te du yoon xam nga am na ñoo xool góol xam prix bi <laughs> dëgg la prix bu seer la de mais damay ruus. barke Serigne Touba Mbacké di nga gis ni xam naa ne moom du yàgg dara. d' accord di nga di nga multiplier prix bi mu gën a aju. d' accord laa wax. d' accord kon gars yi gars yi jàpp leen ci ah mu ngi noonu nag nekk nekk ku disponible damay wax ni li ma waxoon sànq rek. ñii dañ leen war a jàppale parce que ndaw loo xam ne bu jugee. bu bokk nañ ñi nga xamante ni bu amee combat. waa commissariat bi sax duñ nelaw. kenn du nelaw fépp nga fay gis ñuy monter parce que mbooloo mi topp ci ginnaawam. kon tey ndaw ñu mel nii dañ leen a war a jàppale ñëw waxtaan ñoom laaj leen lan la jeunesse bi dund. ñu jéem a ci ñoom. bu ñu xoolee jàmm gën ku ci mel ni Siteu. gis nga ñu ngi koy jàppale ci ay jakarta kon tamit dama ne yéen ñi war nañ leen jàppale. ban volontaire war nañ leen a teg loxo. surtout koo xam ne bu génnee mbooloo génn. Mhm. madame Diop nekk ba États-Unis mhm. chaque jour day waxtaan ak Paul ci côté moom maanaam dañuy ñun dañuy samp dañoo dañoo samp benn mouvement boo xamante ne ni moom besaaru fondation la mhm. moom jóg pour jàppale sunu booy yi nga xamante ne ñu ngi si prison bi mhm. di dund foofu noonu lu metti wallaahi du ma la nëbbu de am na ñoo xam ñu ngi yaakaar ne Bou Siteu mu ngi àdduna la si biir mais nii nii may wax ak yow nii sax wallaahi junni junni sax yoruma ko lu ma yor nit ñi ñoo ko moom. Mhm. booy nekk si prison may woo ne ma mbër nii ma jël enfant yi lu ma yor wallaahi. Mhm. kon tey suñ gisee benn soxna su baax ku nekk Amérique mm. madame Diop ñu koy xam nga ñu ñu teg genre fondation pour jug jàppale ñu nekk si prison bi mm. lool dañ ciy kontaan bu baax mm. xam nga jàppale tamit suñu yenn boo yoo xam te ne xam nga seen loxo jotu seen ginnaaw te ñu xam leen bu baax mm-hmm. xam nga mm-hmm. man buusur am na ñoo xam ne dañuy ñëw wallaahi di ma wax seen soxla yoo xam te ne man damay xam ne mënu ma ko de mm-hmm. mais noo mënte def dinaa dinaa leen may ma mais dinaa fexe ba woo benn Pape gay sax ne ko gaan nii nii nii xoolal mu envoyé ma jëlal ko transféré wàll ñi daal te yàlla xam na ne aw ma dam mais su ma amee mhm. wallaahi man gëm naan képp ko xam Bou Siteu doo sonn dëgg la yaa barke Serigne Ba moo nekkoon sama invité tey di Bou tey lan ngay tàggatoo. waaw di tàggatoo rek di wax ni xam nga. waaw maanaam tey fi nga ma fekk nii sax nga fekk ma ma ceen sama gars yi maanaam lu yàgg dëgg la daal. ay pool xam nga moom ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul xam nga di nuyu tamit ñoom Sora xam nga gaana mi ñoom ñoom Badou xam nga. ñoom baaba Yoro xama di la nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit Khalil. sama xarit Aziz Ndiaye Baye Ndiaye xam nga gàlle bi ñoom ñëpp mu bëgg ay Anta Ndiaye xam nga Juma suma xarit. Mm-hmm. Anta Ndiaye rek defal na ma si kii salange bi gis nga ko moom salange bi nee naa ko yaa dàqale gars yi parce <laughs> Anta Ndiaye nekk suma xarit xam nga di ko bégee bu baax di ñaanal paa bi tamit Baye Ala Ndiaye yàlla yàggal ko fi quoi waaw sunu papa jooju maa ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal maire beeg ñu nekk si gaala bi ñëpp xam nga di sant waa West Foire tamit ku si mel ni suma gars yi nekk foofu ku si mel ni Ousmane Dia waaw Ousmane Dia maa ngi koy sant bu baax moom mu ngi ba West Foire di nuyu tamit ku si mel ni Baara Gueye suma xarit waaw démb plein essence la ma may nekk nit ku baax. di ko nuyu di nuyu Pape xam nga ñoom ay frère am daal di nuyu tamit Bamba. ñoom ñu ngi si kër gi di nuyu tamit jabaram ji borom Cité Gadaay moom suma xarit la nekk soxna su baax. waaw di ko nuyu bu baax di nuyu tamit Pape Pape Bafou Cissé. Uh-huh. Pape Bafou Cissé borom Pikine maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. Uh-huh. di nuyu tamit ñoom Pape Kane xam nga gars yi mafia bi waa Daaru xam nga uh-huh. waaw Pape Bafou Cissé maa lay sant bu baax sama transitaire bi. waaw nekk nit ku baax waa gis nañ teraanga yeeg lépp waaw di la ñaanal yàlla la jàmm daal xam nga di ñaanal te di nuyu tamit waa diaspora bi ku si mel ni ñoom Tony Ndiago xam nga suma papa la jow ma fayam Omar Mbaye maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di nuyu tamit bébé Ama suma doomu yaay xam nga waaw di nuyu waa diaspora bi ñoom Moccaam Séeré Ajara xam nga ñoom ñëpp waaw waaw mais xam nga rek maanaam <laughs> kii wu mbër moo moo demee nii Balla Gaye doo boo ko dékkoo mi kara tey fii la lay nekk daal ay <laughs> xam di la limal kon sama damaa toll foofu war a lim. combat bi passé supporter que Serigne Bamba. Mm-hmm. ku si mel ni ñoom Ahmed Ahmed ak Fifty. Mm-hmm. ba Angleterre lañ jógee ñëw sama combat bi. Mm-hmm. ak ay boo yoo xam te ne xam nga maanaam ñoom ñoom buusi talaa la ñuy topp. xam di nuyu tamit Mor waa si waa ñàgg di nuyu Mor bu baax a baax a baax. borom oto yi moom day jaayee oto quoi Mor maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu suma benn moment boo xam aj aji Ndumbe. aji ndumbe promotrice borom terrain yi waaw aji ndumbe maa ngi koy sant bu baax a baax sunu maman bu baax waaw yow tamit di la sant yow lu yàgg dëgg la yow école de lin mor sama waay nga te yow boobu ba léegi daal musul ñaaw ndeysaan yow di am na benn promoteur moo si di ma wax Boussita Ada Fass barke Serigne Bamba loolu làmb dàq ko maanaam dañoo war a bëre Ada Fass te parce que Ada Fass ba muy avant muy bëre moom isa xam premier combat Ada maa ngi moom ñoo waroon bëre aada waaw premier combat am arène maa maa mu ñoo waroon ba bañ photo ba Fallou Ndiaye woo ma ñëw ba si place am ñu taxaw photo nii mhm. ma ñibbi gars yi woote na xaw ma affaire poids affaire yooyu noonu xam nga rek loolu tax maa ngi moom bëréwul mais heure bii nii kon dégg nga bu Siteu bokk na suñu daan Arafas si ñuy jamono ji Arafas ak ni mu toll nii bu bu nga ko jël. mais Arafas nan la toll daa préparé ji rek ñun dañuy préparé man ku ma siy léegi damay damay préparé ji ñëw. te parce que sama niveau moo mm-hmm. dépassé yenn niveau yi. mais gars yi nee nañ Ada Fass jamono ji nag moo la ëpp coow. non Ada Fass maa ko man booy maa la ëpp man su ma defee émission Ada def émission. waaye fii sama jamartarement opposé du ma seen morom man dama leen a man ci lépp <laughs> waaw man sénégal yi ma bëgg. Uh-huh. yee xam uh-huh. waaw man ñëw ma si làmb di teg bandi man dama ñëw. xam nga. Hmm. ñëw ak fair play. Hmm. ñëw nekk Baye Fall. Hmm. yee xam nga. kon waaw kon Baye Fall rek a wóor daal. kon combat booy ku ma si jël naa la teg lu kon combat boobu bu ñu la cherché pare nga pour jël ko. combat pare pour jël ko. buñ buñ bëggoon avril bii nii sax mu ko. d' accord waaw Ada Fass bu ragalul te parce que man booy ku ma siy bëral dama lay may coow. d' si jël sa coow da a am ampleur bu moo toll si lamb foo xamante ni booy bu mu siy bëral àdduna da lay xam te parce que ki ngay bëral la mbëru réew ngay bëral yee di bëggee gaa yëpp di bëggee xam nga Pocho Kankuran di nuy Kankuran jabaram Oli. waaw di ko nuy bu baax di nuyu Pocho suma papa borom Medina maa ngi sant bu baax a baax a baax. d'accord mu ngi noonu ah moo nekkoon sama invité. fii People 221 moom dama ko bëgg quoi. yàlla dogal ma bëgg ko vraiment mu nekk ku neex a bëgg aussi tamit. di leen jaajëfal ah, di nuyu Paul. am la trahir mafia ah, mais nañ ko may dédicace garaaw du nuyu ah, di wax gars ni champion la vraiment na ko gars yi xel Pape Gueye waa gaale bi yëpp ñu leen di nuyu ah di leen jaajëfal di leen jox daje ci euh, suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen